fukk ak abel ak yoonu sarax mbokk déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nañu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu ci sunu njàng ci tawret gisoon nanu ne gannaaw ba aadama ak awa baakaare yàlla tàmbali woon na leeral ni mu naroon a indee ci àddina kuy musal doomi aadama ci yi seytaane gis nanu it ni yàlla bañe woon nangu yëre xob yi aadama ak awa defaraloon seen bopp yàlla dafa bëggoon a jàngal aadama ak awa ne bàkkaarkat mënula def dara ngir muuru gàcceem fa kanam yàlla yàlla dong nga mën a musal bàkkaarkat yi ci seen gàcce naka noonu gisoon nanu ni yàlla ci boppam rende woon ay mala defaral ci aadama ak awa yërey der solal leen ko yàlla moo defoon saraxu deret su jëkk sa saraxu mala ci yàlla la jóge jàng nanu it ni yàlla yëgle woon ne dina am léegi ñaari xeet ci kaw suuf ñi bañ gëm kàddug yàlla ak ñi ko gëm tey nag dinanu jàng ci lu jëm ci ñaari doomi aadama yu jëkk ya di kayin mi bañ a gëm yàlla ak abel mi ko gëm ni nu ko gise woon léegi aadama ak dëkk ci biti toolu àjjana ndaxte yàlla dàqoon na leen ndax seen jàdd yoon seen bàkkaara taxoon mënatuñu dund ci naataangeeg toolu àjjana seen bàkkaara yàqoon seen digganteek yàlla wante ba tey yàlla bëggoon na leen di leen toppatoo suñu ko umpalee sax léegi nanu jàngandoo ci ñeenteelu saar ci téereb njalbeen ga mbind mi nee na gannaaw loolu aadama ànd ak awa jabaram mu ëmb jur kayin mu ne am naa nit ci ndimbalu aji sax ji awa teg ca abel rakkam abel di sàmm kayin di bay kon adam awa jur nañu ñaari doom kayin ak abel ni seeni waajur ay baakaarkat lañu woon baakaaru adama lawoon na ba ci doomam mel ni feebar buy wàlle kayin ak abel ci baakaar lañu soso noonu mbind mi nena adama jur na ay doom ci melokaanam doom ja baay ba kon kayin ak abel jikko ju bon lañu judduwaale xale yi di màgg ci jëmm te yokk ci xam-xam kayin baykat la woon liggéeykat bu am jom la woon te ñeme coono naka abel moom sàmm la woon ñoom ñaar xamoon nañu lu bari ci lu jëm ci yàlla xamoon nañu ne yàlla am na te dafa sell te bañ bàkkaar te it ñoom ñaar waroon nañu xam ne ku bëgg a jege yàlla faw mu jaar ci yoonu saraxu deret wi yàlla tëral kon nag amoon na benn bés ci dundu kayin ak abel ku nekk ci ñoom façon yéene màggal yàlla jébbal ko ay sarax kon mbind gannaaw ay jamono kayin jël ci limu bay jébbal ko aji sax ji ngir màggal ko abel moom jébbal yi jëkk judd ci géttam te gën cee duuf aji sax ji nangul abel waaye nangulul kayin kayin nag daldi mer lool ba xar kanamam bi lëndëm nanu xalaat ci li xewoon ñaari nit ñu bëgg jaamu yàlla ñu jébbal yàlla ay sarax wante mbind mi ne aji sax ji nangul abel waaye nangulul kayin lu tax yàlla nangul kenn ki saraxam te gàntu saraxu keneen ki lan moo wuutale woon ñaari sarax yooyu ci lu wér saraxu kayin ak saraxu abel wuute woon nañu lool kayin lejum yu rafet ak ay meññeef yu neex la indil yàlla abel moom indil yàlla deretu mbote mu sikkul lu tax yàlla far bàkkaari abel mi indi deretu mbote te farul bàkkaari kayin mi ko indil ay lejum ndax yàlla dafa bëggul ay lijum ak ay meññeef du noonu de lu tax nag yàlla àtte abel ni ku jub te bàyyi kayin ci baakaaram lii moo tax abel dafa indi sarax si yàlla santaane woon te kay indi leneen lan la yàlla laajoon ngir mën leen a bal seeni baakaar te ba tey dëkk ci njubte deretu mala mu amul sik abel gëmoon na yàlla ba indi saraxu deret ci yàlla laajoon waaye kayin moom gëmul woon li yàlla wax dégluleen leen li mbind mi wax ngëm moo tax ba abel jébbal yàlla sarax su gën saraxu kayin ngëmu abel moo tax ba yàlla àtte ko ni ku jub bi mu ko seedeelee ne saraxam baax na abel gëmoon na yàlla wante kayin gëmu ko woon gëm yàlla lu muy tekki gëm yàlla mooy wóolu yàlla ba déggal kàddoom gëm yàlla mooy nangu li yàlla wax su kenn ne gëm naa yàlla te gëmuloo li yàlla wax ci mbind mu sell mi kon gëmuloo yàlla ci dëgg-dëgg yàlla ak kàddoom benn lañu képp ku gëm yàlla dinga gëm kàddoom te déggal ko itam ku faalewul li yàlla wax yàlla ci boppam nga bañ yàlla nangul na abel ndaxte gëmoon na kàddoom ba jege ko ak deretu mbote ni ko yàlla santaane woon wante yàlla nangulul kayin ndaxte gëmul woon kàddug yàlla ci dëgg-dëgg kayin dafa mbubboo gëm yàlla waaye ay jëfam weddi na ko ndaxte jébbalul woon yàlla saraxu deret ni ko yàlla santaane woon na am na kuy laaj waaw lu tax yàlla santaane woon saraxi mala lu tax yàlla waxoon bu deret turuwul mbaalug bàkkaar du am tontu laa ngi yoonu yàlla wu sel wi nee na peyug mooy dee loolu moo tax faw deret tuuru yàlla waxul woon mënees na fay bàkkaar ak ay meññeef ak i lijum yàlla waxul woon it peyug bàkkaar mooy jëf yu rafet ak woor ak sàkk sarax déedéet li yàlla wax ci sellaayam mooy lii peyug bàkkaar moo di de yàlla ci mbind yonent yi dafa nuy won ne doomi aadama yépp def nañu bàkkaar te bàkkaarkat bu nekk am na bor bu rëy fa kanam yàlla aji sell ji faawu bàkkaarkat bi dee fay boru bàkkaar boobu ca safara ba faaw boru bàkkaar dafa rëy lool te mënuloo def ay jëf yu baax yu doy ngir far ko fa kanam yàlla peyug bàkkaar moo di dee ak safara looloo tax jëf yu jub mënuñu fey boru bàkkaar mukk nanu ko fexe misaal su fekkee ne dama amel boru xaalis bu bare bare benn leblekat te ma dem ci moom ne ko man daal xam naa ne dama la amel bor bu rëy lool waaye dama bank te mënuma fay sa bor ak xaalis wante am na meneen pexe mu ma rabatoon ngir fay la mooy bés bu nekk dinaa ñëw bale sa buntu kër naka noonu dinaa la liggéeyal ba sama bor jeex leblekat bi nag lan la may tonto xëy na dina mer wala mu may reetaan wante li wóor peng mooy du nangu mukk sama xalaat boobu lu tax leblekat bi du mën a nangu pexe moomu ndaxte liggéeyu bale rekk mënula far mukk boru xaalis bu bare noonu naka noonu kenn mënula fay boru bàkkaar ak jëf yu jub lenn rekk ko mën a fay du xaalis mba jëf yu jub wante dee peyug bàkkaar mooy dee te tàbbi safara ba faw kon yàlla mënula far boru bàkkaari kayin ak abel ci kaw seeni jëfi loxo pexe yàlla ngir fay boru bàkkaar moo doon lii deretu sarax si faw ñi tooñul dee ci palaasu ñi tooñ mbalug bàkkaar ajuwul ci pexem nit waaye ci pexem yàlla jaare ko ci deretu mala yi yàlla ubbil na doomi aadama buntu mucc ci jamono yu jëkk ya yàlla dogaloon na ne faw bàkkaarkat bu nekk jébbal ko mala mu sikkul te wàññeekuwul rendi ko mala ma amul genn tooñ dee wuutu tooñkat bi ci kaw deretu sarax soosu yàlla mënoon na muñal doomi aadama yi ba jéggal leen seeni bàkkaar ab diir wante deretu mala mënul woon a fay boru bàkkaaru nit ba faw ndaxte maanawu mala ak bu nit yamul moo tax mbind mi nee na saraxi mala ya dañu doon misaal xéewal yi waroon a ñëw takkandeer lañu ci jëf yu dëggu yi waaye du ñoom ci seen bopp ndaxte deretu mala yi mënuñoo dindi bàkkaar yi li gën a am maanaa ci li nu war a xam ci lu jëm ci saraxi mala yi mooy sarax yooyu yépp ay misaal kese lañu woon ci musalkat bu jub bi naroon a gane ci àddina ngir fayal doomi aadama yi seen boru bàkkaar musalkat boobu yàlla dige woon waroon na dee benn yoon ba faaw ngir dindi bàkkaar yi moom mi jub ngir ñi juba di ngir yóbbu leen fa yàlla naka noonu bind nañu ci linjil ne yonent yépp seedal nañu ko ne ku gëm musalkat bi yàlla dina la bal say baakaar ci turam kon mën nañu xam lu tax yàlla santaane woon saraxi mala ci jamonoy jëkk ya wante kayin amoon na beneen xalaat sàkkoon na weneen yoon jeneen diine di diine ju dul dëgg indil na yàlla ay jëfi loxoom saraxaloon na yàlla li mu beyoon maanaam meññee suuf si ñu rëbboon te amul deret ndax yàlla nangu na sarax soosu déedéet yàlla nanguwu ko waaye abel moom jébbaloon na yàlla mboote mu amul sikk rendi ko ba deret jépp tuuru gannaaw loolu mu lakk ko sarax soosoo taxoon abel am xel mu dal fa kanam yàlla xamoon na ne ci boppam moo yelloo dee wante mbote ma amul woon genn tooña ko wuutu noonu la abel seede woon ngëmam ci ramukat bi naroon a gane ci àddina si ngir dee ci palaasu bàkkaarkat yi gàddul leen seen mbugalu bàkkaar ngir tënk nettalib tey bi am na lu nu leen bëgg a laaj lu tax yàlla nangulul kayin saraxam ndax kayin dafa gënoona nekk bàkkaarkat abel loolu taxul ay bàkkaarkat lañu woon ñoom ñaar ñépp te ñoom ñaar jébbal nañu yàlla ay sarax kayin nit diine la woon ci gis-gis xëy na mën nañu wax sax saraxu kayin moo gënoon a neex saraxu abel lejum yi ak meññeef yi rafetoon nañu lool wante mboote mu ñu rendi deret ji tuuru neexul a gis waaye yoon wu jub wi yàlla tëral dafa newoon bu deret tuuruwul mbaaluk bàkkaar du am looloo taxoon yàlla gàntu kayin moom ak saraxam ndaxte faalewul woon yoon wu jub yàlla tëral kenn du mën a ñëw ci yàlla te jaarul ci yoon wu jub bi mu tëral yoonu yàlla yoon wu mat la te jub dafa xaw a mel ni mathématique ci école sub jàngalekat laajee ndongo yi ñaar ñu yokk ci ñaar ñaata la benn tontu bu jub rekk a am ñaar bu ñu ci yokkee ñaar ñeent lay doon ndongo li tontu ñett juum ku wax juróom juum na ku wax ñeent genn wàll itam juum na ñaar ak ñaar ñeent dong la noonu la nekke woon ak yoonu jup yàlla tëral yenn yàlla képp moo am ak wenn yoonu mucc diggante bàkkaarkat yi ak yàlla aji sell ji mooy yoonu sarax su mat sëkk si yow miy déglu tey ndax xam nga li kàddug yàlla wax ci lu jëm ci sarax su sell si yàlla joxe ngir far sa boru bàkkaar benn yoon ba faw ndax xam nga ne yàlla ci boppam wàcce na ci àddina ab musalkat bu am doole ngir nga mën a am xol bu sell fa kanam yàlla ci njàng yi di ñëw dinañu jàng lu bari ci mbirum musalkat bu baax bii mbind mu sell mi dafa wax ci moom ne mucc amul ci keneen ndaxte ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu wara mucce mbokk yi fii lanu wara yem tey bu soobee yàlla dinanu àggale sunu njàng ci lu jëm ci kayin ak abel ci émission bi di ñëw su fekkee ne am ngeen ay laaj ci li nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen fàttaliku sartu yàlla bi nekk ci mbind yonent yi bu deret tuuruwul mbaaluk bàkkaar du am